alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Rewmi FM 97.5 nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy bàyyi xel ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Diawo Diallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanuk jàmm waaye ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm ndax moo ñu ne ud'uuni astajibu lakum ñaan leen ma ma may leen ba tax na ñu ngi koy tàllal loxo di ko ne allahuma anta salaam wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayyinna bisalaam wa doxinna aljannata daarak daar salaam amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xam ngeen ne bi léegi ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji Rewmi FM 97.5 su ko defee ñu ngi joxe ay nasiha ay laaxe biir ko ci ña nga xamante ne ñoom la buur yàlla suñu borom subhaanahu wa taala tànn ci askan bi ngir ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi démb ñu ngi doon waxtaan ak yéen ci la tax yàlla tànn yonentu yàlla daawuda ci pénc bi ngir mu bàyyi ko ci kanamu ñamu ne moom yàlla moo leen tàggatal jox leen yonentu yàlla daawuda ngir mu taxawee seen mbir kon ba tax na yàlla ne yonent yàlla daawuda ci aaya bi ci njeexantalu aaya bi mu ne ko yaa daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaas bilxaq wala tattabic ilhawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadid bima nasuu yowma alxisaab yow daawuda man yàlla maa la def nga doon xalifa ku ma wuutu ku ma war doxalal sama tëralin ci kaw suuf si kon faxkum na naas na nga àtte ci diggante nit ñi bil xaq ci dëgg wala tattabil hawa bu nangoo topp sa bànneexu kenn su ko defee nga doon kay riiralaate te su boobaa yow it dinga riir ci yoonu dëgg su ko defee yàlla ne ko ñi nga xamante ne dañuy sankoloo nit ñi dañuy réelal nit ñi ci yoonu yàlla ah ñooñu de yàlla nee na ñeel na leen mbugal joo xamante ne keroog bés penc dinaa leen ko mbugal ndax dañuy géema fàtte fàttelu bés ba nga xamante ni ca la yàlla di régler mboolem nit ñi kon ñu nit ñoo ngi nii di yóbbante aaya bi ak la aaya bi di tekki suñu député yañu ñu yóbbante ci pincum ndaw réew mi su ko defee ñu bàyyi xel la yàlla wax yonent yàlla daawuda ci aaya bi ñu ne ñu ngi leen koy wax ñu ne leen yéen député yi askanu Sénégal ñoo leen yóbbante ci pincum ndaw réew mi ngir ngeen toggal leen fa kon faxkum bayna naas bil xaq na ngeen doxal dëgg ci diggante nit ñi ci béréb boobe wala tattabiil hawa bu leen nangoo topp privilège yeeg banneexu bakki nii su ko defee fa yudilluka an sabilillah yow mi topp sa bànneexu bakken ci pencum ndaw réew mi nga bàyyi àtte yàlla bi xamal ne loolu kat dina tax doon dina la taxa doon ku sanku dina tax doon kuy sankuloo képp ku nar a topp yoon bu jubbi su ko defee nga bañ a doon kuy sankuloo nit ñi ci yoonu yàlla bu déggu bi yow ci sa jëmu bopp nga bañ a sanku ndax yàlla après da leen jox avertissement comme la mu joxee avertissement yonent yàlla daawuda pour yàlla ne inna alladina gaayaa ngi nii ñoo yore melokaan woo xamante ni yu na an sabilillah dañuy réeral nit ñi ci yoonu yàlla bu jubbi yàlla nee na ñooñu waajalal naa leen mbugal ju mitti fii ci àddina waaye keroog bés penc dinañu ñam mbugal ju mitti tamit la leen koy tax a ñamloo mooy bi ma nasu yowmal hisaab la tax ñu géem a fàtte fàttelu responsabilité ba leen yàlla dënk jub-jubal jubante ba ñu war a taxawee ci pénc bi dañ ko géem a dumoo yu ñu topp seen bànneexu kenn ba tax na sànkuloo nañu nit ñi ci yoonu yàlla ñoomit ñu sànkuloo seen bopp ci yoonu yàlla réelal nañ nit ñi ci yoonu yàlla ñoomit ñu bokk ci ñu réer ci yoonu yàlla bu jubbi ba tax na yàlla mere leen jéppi leen ba tax na dina ñu ñam mbugal ju métti fii ci àddina waaye keroog bés pénc la leen di xaar mooy gën a bëri ndax dañoo dumo yu dëgg ba leen yàlla jox su ko defee nañ leen moytu la nga xamante ne mooy banneexu kenn ak privilège yu ëpp ya nga xamante ne ñun leen koy jox ci béréb boobu nga xamante ne mooy assemblée national ba tax na ñu bokk ba léegi jox leen ay conseil ay nasiixa ya jóge ko ci lenn ci ña yàlla baaxe nguur fii ci àddina waaye ànd ak loolu dara foqut seen bët dara tiitalu leen ndax foqalewuñu wuñu ndax dañoo teg lépp ci raay bi ndax ñu ngi sóoraale seen diggante ak seen borom waaye ànd ak loolu seen nguur jeex na ñoom ci seen jëmm bopp jeex nañu jëf ju baax ya jëf trajectoire bu baax bañ fi bàyyi moom la bindkat yi bind ba tax na képp ku mbaax ñor dangay séentu dangay ngay xeeñtu da ngay géem a teg sa jéego ci doxalinu nit ñu baax ñooñu ba tax na ñu bëgg leen andil jox député yi conseiller xelaat ak xelal ba nga xamante ne waa ju baax di xalifa Omar bun Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan waasiah daanoon na wax ñoom doon toogal képp ku bëgg dugg ci suñu système ba ñuy waaj a tëral nii na nga gànnaayoo juróomi diplôme ba war a tax nga bokk ci suñu système bi moo tax mu ne kaana xalifatul aadil omar bun abdul aziz yaquul li julasaa'ihi man araada an yusaaxibna fal yusaaxibna bi xamsin nee na nekkoon na juróomeelu xalifa jullit ñi di omar bun abdul aziz mu nekk xalifa bu jub moo tax mu ne kaana nekkoon na ali aadil xalifa bu jub xalifa bi nga xamante ne moom la yàlla wax daawuda yaa daawuda inna jaalnaaka xalifatan fil ard ñoo la teg ci pénc bi ndax ngir nga wuutuñu ci jaam yi kon nanga nga àtte ci lu déggu ak ci lu màndu moo tax bindkat bi tamit nee na kaana xalifatun aadil nekkoon na xalifa bu jub nekkoon na xalifa bi fi nekkoon mu doon xalifa bu jub xalifa bu màndu xalifa boobu nu mu tudd mooy omar bun abdul aziz mooy omar du doomi abdul aziz rahimahullahu taatan waasiah yal na yàlla yërëm yal na yàlla wàcce xéwalam ci omar bun abdul aziz rahimahullah nekkoon na di wax li jula sa ihi ñamu doon toogal ci conseil di ministres ba mu doon organiser ci palem daanoon na leen wax naan man araada an yu saaxib na képp ku nam képp ku bëgg suñu système bi képp ku bëgg dugg ci suñu système bi képp ku bëgg adhérer ci suñu parti ci suñu doxalin ba ñuy doxal nii di doxaluñu diini islaam fal yu saaxib na bi xam na nanga gànnaayoo juróomi diplôme yañ la bëgg tiralal nii kon yéen député yi tamit na ngeen géem a installé doxalinu Omar bin Abdul ci seen assemblée nationale waaye yéen mi yore majorité ci barnamaan ba nga xamante ne yéen a ngi koy waaj a ci fan yu néew na ngeen gànnaayoo la nga xamante ni moom la Omar bin Abdul Aziz wax ci conseil des ministres keroog ba mu doon organiser conseil des ministres boobu la mu wax ci député yi la mu wax ak ministres yi la mu wax ak intellectuel ya teewee woon jotaay boobu ñu nit loolu lañ leen di yóbbante ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtu wi ngeen gànnaayoo ko na ngeen ko partager kenn ku nekk am la nga war a mën a taxawee par rapport ak la Omar bin Abdullah Aziz doon wax ci conseil di ministres yi nee na képp ku ñu bëgg jàppale ci suñu doxalinu procès bi képp ku ñu bëgg a jàppale ci suñu système bi képp ku ñu bëgg a jàppale ci suñu idée bi na nga gànnaayoo juróomi diplôme yi juróomi diplôme yi bokk na ci yusli ilayna xaajatan naam yusili ilayna xaajatan min man laa tasil ilayna xaajatahu Omar bin Abdul Aziz nee na njëlbéenu diplôme bi na doon képp ku ñuy àndil soxla na doon soxlay askan bi mu bañ a doon soxlay boppam képp ku ñu war a soxla na doon soxlay askan bi mu bañ a doon soxlay boppam moo tax mu ne yasili ilayna haajatan man laa tasili ilayna haajatahu kuy dem ba di ñu ñoddil soxla di ñu ko andil ki am soxla ci biti mu di ko ñoddi ngir mu dugal ko ci suñu assemblée nationale na doon soxlay askan bi bu mu doon soxlay boppam kon privilège su individualité soxna mari bu dee baat bi nii la soxlayu bopp anaaniya Seydina Omar bin Abdul Aziz nee na bu ñu ko kenn andil waaw bu ñu kenn andil soxlay boppam soxla bi nga dëri ci biti nar koo andi ci pénc bi ah na doon soxlay askan bi bu mu doon sa soxlay bopp loolu di benn ñaareel bi mu ne wayadulluuna man min al adli illa ma la nahtadi ilay nañu orienté nañu conseillé nañu xelal ci njub ak maandu ci li nga xamante ni dinañ ci war a mën a orienté wu ñetteel bi mooy wa yakunu awnan lana ala al na gannaayoo ñetteelu diplôme bi nga xamante ni mooy diplôme bam ñuy tëralal ngir mu di ñu dimbale ci dégg waaw jëmm ji na doon ko dëggu lam ñuy conseil na doon lu déggu waaye nañu dimbale ngir ñu war a mën a songu dégg ci boppam ñu di ko afronte ñu di ko taxawal ñu di ko jëfe ñu di ko melo en ku ñu war a mën a képp ku bëgg ñoo bokk ci suñu système bi daal na doon jëmm joo xamante ni daf ñuy dimbali ci dégg mooy ne ñeenteel bi mooy wa yu addil amaanata ilayna wa ila nnaas waaw la tax ñu jox ko post ba mu nekk na matale kolëre boobu waaye lañ ko jox ngir mu yóbbante ko ci askan bi na ci askan bi jot ba mu mànkele dara post ba ko askan bi fal na matale kolëre boobu waaye la war a jóge ko ci nguur gi war a dem ci askan wi na si askan bi jot bi mu mat sëkk juróomeel bi mooy mu ne na gànnaayoo diplôme bi nga xamante ne wala jikko joo xamante ne walla melokaan woo xamante ne wala yaqtabba indana ahadun kenn ci ñañu war a mën a ñëw bokk ci suñu doxalin képp ku war a mën a ñëw bokk ci suñu doxalin bi bum ñu mere bum ñu gasal kàmb bum ñu gasal ndëx sërëxal bu ñu gasal pexe bi nga xamante ni buñ ci tàbbee gouvernement bi dina daanu wala assemblée bi dina nërmilu wala système mu doxalinu procès bi dina yàqu bu ñu kenn tiral tëriran bi ni mel waaw ku ñuy xelal nañu xelal xel bu yaatu xel bu laab yiine bu sell képp ku ñuy xàllil yoon nang ñu xàllil yoon wi nga xamante ni dinañ fa mën a jaar mu doon yoon bu leer mu doon yéene bu sell ba ko lal mu bañ a doon ay ndigg sërëxal ak ay kamb boo ñuy gasal ak ak yéene bi nga xamante ne li ngay wax ci kaw neex na lool waaye la nekk ci suufu loolu ngay wax lépp ay musiba la bu ñu kenn jikkoo jikko bi ni mel bu ñu kenn melal melokaan bi ni mel kon lii la Omar bun Abdul Aziz doon yóbbanti lenn ci conseil di ministres ba mu doon am ñu nit ñu jukkil leen ko ci téere bi su ko defee ñu àndil leen ko ngir suñu député yi ñu war a toggal ci pencum ndaw réew mi ñoom it ñu daldi di jil la leen arrangé wala la leen gënal ci la Umar bun Abdul Aziz doon joxe discours bu fort keroog ba mu doon joxe la nga xamante ne mooy lamu mu baaxee askan bi ngir ñu xamee ko nii mu daal tëj conseil de ministres ba mu doon def par rapport ak discours ba mu leen doon wax ni mu ne leen wa man lam yafalu fa huwa fii xaariji man yu saaxibna waaw nee na lii ñu wax ni képp ku ko doxewul képp ku ko jëfewul képp ku nekkul ci lii kooku mu ngi ci biti doxalin ba ñu tëral kooku nekkul ci suñu euh, projet bi ñu tëral kooku bokkul ci lañu sumb kon kooku mu ci biti jëfe bi nga xamante ni moom lañu ñu nar a jëfe suñu doxalinu gouvernement bi mu ne wadda wadda xuulu aleyna nee na kooku du dugg ci suñu système bi rawahu abdullahi bun ayeyna waaw wax bi daal ki solo mooy abdullahi bun uyeyna almisri fi siratin omar bun abdul aziz rahimahullahu rahmatan waasia wa axrajahu ibnu assaakiri fi taarixi damask naam boo demee ci téere bi di fekk lii ci téere boobu mu doon kàddu ju am solo ñu nit ñu di ko yóbbante ngir suñu député yi ñu daal ko jëfandikoo yal na leen ko yàlla yombalal yal na ko buur yàlla yombalal waaye na ñu di leen di moytandikuloo la nga xamante ne mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon joxe melokaanu naafiq boo xamante ne day wax la mu dul def bu ñu ko wóoloo mu wor bu joxante nit kóllëre mu fecc ko ba tax na buñ leen gunjee ci ay ndigle ñu jox leen ay conseil ñu jox leen ay xalaat kon dafa jaadu tamit ñu di leen moytandikuloo la nga xamante ne mooy la yonent bi ne ayatul munafiq salaasa kon yonent bi salaa moo ñu wax ne màndargay naafiq bu ñu ko waxutoon amul kenn ku ñu koy wax waaye amul kenn ku ñu ko war a melal ba tax na sallallahu alayhi wa sallam nee na ayatul munaafiq salaasa ida xadasa kazaba wa ida wacada axlafa wa ida utumina xaana rawaahu buxaari wa muslim mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ki yàlla doyloo yónne ko ci askan bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima mel na ni xam na ni mu juntelu jamono wax lu du dégg nit ñi duñ ko jàppee lu garaaw wor nit ñi duñ ko jàppee lu garaaw wuute di nit ñi duñ ko jàppee lu garaaw ba tax na yonent bi nee na loolu ku ku ngeen ko gis màndargay naafiq moo nekk ci moom feebaru naafiq moo nekk ci xolam ba tax na mu ne ñu ayatul munafiqin màndargay naafiq képp ku bugg a xam màndargay naafiq jàppal ñett ñi ci koo ko gis rek màndargay naafiq nekk fa moom te naafiq nag moo ëpp mbugal yéefar ba tax na yàlla ne naafiq yi keroog bés penc fa gën a ruqe fa gën a tàng fa gën a suufi ca safara fa leen di placé azanallahu wa iyaakum yal nañu yal nañu yàlla boole musal ci mbugalu naafik waaye yal nañu yàlla boole musal ci màndargay naafik alayhi salaatu la mu joxoñ ci màndargay naafik ñett la nee na aayatul munafiqin salaasa màndargay naafiq nee na ñett la bu ci jiitu mooy ida kese ba bu naree waxtaan la gën a ëpp la muy wax du doon dégg moom bu waxtaanee rekk ngay gis muy feeñ ci waxam gannaaw dëgg waaw gannaaw dëgg daal loolu mooy gën a ci waxam yi génne ci gémmiñam maanaam moom daal contraire lu mooy gën a ci la muy wax moo tax yonent bi ni ida xadasa bu waxee kadaba day wax lu du dëgg day fen bi maana yonent bi ne ida waada xlafa boo ko diggee mu war la wa ida waada bu la diggee axlafa mu wor la mu wuute ko waaw moom daal bu diggee du ko def waaw moom daal bu diggee du ko def du du la mu diggalanteeg nit ñi du respecter la nit ñi diggalanteeg moom moom képp ku mu diggalanteeg mbir daal buy fecc bu fecci di am mooy njëkk a fecci kóllëre moom moom daal daa gaaw a fecc kóllëre waaw koo gis muy gaaw a fecci kóllëre bi nga diggalanteeg moom bu ko tàmmee xam leen ne mandargay naafiq moo nekk ci moom comme na ko yonent bi jàngale alayhi salaatu wassalaam nee ñetteel bi mooy wa ida utumina xaana boo ko dénkee boo ko wóoloo mu wor boo ko dénkee mu wor la moom daal loo ko dénk ci kàddu mu wor la mu dem jibaane la loo ko dénk ci alal walla ci matériel dina ko jaay wala mu réeral ko wala mu def ci loo xamante ne ëllëg ci biir sa xol da ciy naqdi doo ci am xol bu neex mbokk yi bu fekkente ne lii la yonent bi joxoñ ne lii mooy màndargay naafiq kon suñu jamono yi naafiq yi bari nañu lool ànd ak loolu ñoo ngi jullendoor ak ñun ci jàkk yi ñu ngi dëkkaale ak ñun ci kër yi ñu ngi leen xam ñu xam ñu waaye est-ce que bàyyi nañu xel ne loolu ñu nekkee màndargaay naafiq la tontu bi mooy waaw walla déedéet képp koo xamante ne màndargaay bi nga nekkee te ñun suñu jamono ji mal asaf malheureusement ñun ñooñu la ñu jàpp nit ñu tekki ñooñu la ñu jàpp nit ñu baax ñooñu la ñu jàpp nit ñu nit ñu garaaw ñun ñooñu la ñu jàpp ne ñooñu ñooy nit ñu tekki or ko ñooñu la yonent bi joxoñ ne màndargay naafiq lañu kon ñun est-ce que xam nañu la ñu bi joxoñal ne ci képp ku mu nekk màndargay naafiq moom nga nekke bu dee waaw nañ leen xool bu dee déet nañ leen xool waaye nag ñun suñu jamono ji ka mën a wax lu du dégg moom la ñu gën a jox gëdd moom la ñuy xool moom la ñuy déglu moom lañuy ñuy bàyyi xel or que kooku dañ ko war a ignorer ci société bi képp ku nekk di wor nit ñi kooku lañu jàpp mu doon star kooku la ñu jàpp mu doon luxuskat kooku la ñu jàppee ndaanaan kooku la ñu jàppee nandite or que kooku la yàlla yonent bi joxoñ ne kooku mooy tooke ci société bi kon ka yonent bi joxeñ ne tooke la ci société bi est-ce que ñun loolu ñu ngi koy xoolee ne tooke la déedéet ñun kooku la ñu jàppee star kooku la ñu jàppee star kooku la ñu jàppee star waaw ñun kooku la ñu jàppee benn icône boo xamante ne lu mu def nanaan oh gis nga waaji lu mu def gis nga waaji nu mu wax gis nga waaji nu mu mel nu mu mel ak lu mu wax ak nu mu nekkee ki yonent bi ni kooku mandargay naafiq la tey ñun société yi ñenn ci nit ñi ñooñu la ñuy jox faveur ñooñu la ñuy déglu ñooñu la ñuy bàyyi xel ñooñu la ñuy seet ñoo la ñuy xool or que ñooñu la yonent bi ni ñu ay poson lañu ci société bi ñooñu dañu war a deñ ci société bi ñooñu la yonent bi wax ne bi léegi bokk na ci màndargay naafe wa ida utumina xaana boo ko dénkee mu wor la waaw diw sàngam euh, ki ko ki ko ki ko bëgg takk wala diw sàngam ki ko doon labat xaritam jaare na ci ginnaaw euh, suufe na ko jël na soxnaam walla jël na jëkkëram waaw ñu def loolu mu doon benn kaa xamante ne moom la ñuy ŋawti ŋawti moom lañuy wax ba jënt moom la ñuy wax pendant une semaine te loolu duñu duñu du ñu si am dara la ci njëriñ yàq yow mi koy wax yow mi koy diglu tamit doo si jëlee dara lu du xol bu naqari ànd ak loolu yonent bi kooku la joxoñ ne moo yore màndargay naafiq nga wóolu sa xarit nga wóolu sa àndandoor nga wóolu sa copain wala sa copine nga wóolu ko ngeen wax ba teg kenn jóge ko ca làng bi fee ñu xëpp ko xaalis ñu nan ko wala baa doole bi nga xamante ne amul lay sukkar màdd comme niñ koy waxee amul lay sukkar kafe kii bu la tekkee fu la lay yóbbu ni lay mel waa ji jógee ko ca làng bi ñu xëpp la ay million nga bàyyi ki nga di xalante woon ci sëy ba ngeen tëral wala ci projet ba ngeen tëral nga daal di ko jàmb war ko bàyyi ko naqaram nga dem dugg ci fi nga defe ne foofu mooy la fees sa bët waxuñu ne la bul fa dem waaye booy dem na nga àndaaleeg moom bu fekkente ne mënoo ànd ak moom ci loolu nga gis ne loolu moo moo moo gën a ëpp moo gën a ëpp solo la ngeen téral mais bu ko dem bul dem bàyyi ko bu ngeen du ànd jëfa ngeen jëfandoor loole yow bul dem bàyyi ko wala ngeen nekk ci seen kurkuri bi ba keroog ngeen di gis lu leer noonu lañuy jàppee wëllëre waaye nga gis la sa bët kii moom lu mu nekkee man dépassé naa ko nga daal di ko fi ni ñukk ni yëkk bu naq di nga naan da ngay dem war ko ah mu ngi noonu demal mais après lu ciy feeñ ah loolu du doon la neex yow kon ñitti jikko yee yonent bi tegtal ne lii mooy jikkoy naafiq kenn ku nekk ci pencum jullit bi war nañ ko war a mën moytu moo tax ba léegi bindkat bi nee na sallallahu alayhi daf ne li kulli muminin arbaata aada jullit bu ne yàlla da koo gàll ñeenti noon waaw quatre ennemis la gàll gàll kenn ku nekk benn bi di muminun yaxsuduhu jullit ni yow balay iñaane bala ëmbal xolu iñaan moom yéenewul la dara lu baax ñaareel bi mu ne wa munaafiqun yubghiduhu naafiq boo xamante ne dalay mere moom kañ moom toujours dalay mere bu ñu waxee sa tur mu mer bu la gisee mu mer bu gisee sa photo mer bu gisee ñu ne yaa defar lu baax li mu mer bu gisee ñu ne yaa war a dem fu baax fi mu mer waaw ñetteel bi mu ne wa kaafirun yuqaatiluhu yéefar boo xamante ne daal moom yéenewul la dara lu dul am ak yow confrontation xeex wala saa yum la gisee sax lam lay yéene mooy yal na dee yal ka rey yal des fi yàlla bu mu mucc ci loraange boo ko fi war a fekk moom daal du la yéene dara lu dut lu ñaaw sa bakken sax bu ko munee jël dina ko jël mooy wa kaafirun yuqaatiluhu yéefar boo xamante ne daal yéenewu la yiw yéenewu la jàmm yéenewu la salaam moom daal bu doon sa sagoom bu doon lu muy am ci yow mooy nga nekk ci loraange rekk ñeenteel bi mu ne wa cheytaanu yudilluhu mooy cheytaane boo xamante ne daal cheytaane li mu dexalantek borom bi moo ne dinaa leen toogal ci sa yoon bu jub bi ku ma gis muy ñëw ngir mu doon ku jub wala kuy jubal walla kuy jubbanti ma daldi di ko disorienté be mu sànku wala ma sànni ko ci ñaay ba mu bañ a doon ko jub moo tax mu ne aw wa cheytaanun yudilluhu wala cheytaane boo xamante ne moom daal luy mëbitam mooy mu réeral la sànku loola yóbbu la ci mbooy bi nga bañ a tegu ci siratullahi al mustaqim kon mbokk yi ndegem lii dafa jariñu di ko waxtaanee ci pénc bi sensibiliser nit ñi sensibiliser jàngalekat yi kilifa yi ak lenn ci député yi su ko defee ñu opte jikko joo xamante ne mooy jikko joo xamante ne suñu borom bëgg na ko gërëm na ko waaye yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi suñu mag ñu baax ñi bàyyi ko fi kon ñu ngi leen di ñaan ngelawaay bu ñu mujj ci puso bi mu suñu loxo lu gàcce la kon yal nañu yàlla sàmmal jikk yu baax ñi lépp lu ñu digg ci kàddu gi yal nañu ko yàlla kàttanal ñu mën kaa jëfe waaye suñu jikko yu baax yi fi nekkoon yan na ko yàlla sàmm yan na leen yàlla delloo ci amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay tas xibaar ñu ngi nii taxaw ñu fas yéene leen jibbal béréb bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wulata umurina allahuma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahuma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu